ajar besibelah kombade digante Touba aku Bour buru salung, apa Maron bu saaku xam-xam Touba Kouta pap Maron e ya alaaji di ndigi leetaan am sadiran to leangan wiin wa ana sigom co ko jeg Toubacouta Saako ehe eh, doole waa buur bi ey citno kiini citno rooga yaal den mojun Pape Maron jël na avertissement Toubacouta Pape Maron ehe eh. sol na caxabal wala eh. Touba bi Touba Kouta daan na Pape Maronde